salaamaaleykum waaw Pa bi ñu ngi ziar bu baax. tey ñu fekk na fii si Yoff. Mhm. kenn du laajte loo fi def. waaw taxawaay bi la moo waral taxawaay bi fii se euh, c'est ni ñuy ni ñuy taxawee yoof la ñuy taxawee Touba la ñuy taxawee Tivaouane la ñuy taxawee taxawee Medina Baye ak feneen ak feneen. Mhm. Euh, au delà nag fii ñun suñu ay bokk ñoo fi nekk. donc euh, suñu askan la suñu baay suñuy maam suñuy bokk suñuy bàjjen suñuy tante. njaboot gi nekk Tidiane nekk Layen nekk Mouride nekk waa kër Maam Baye. Euh, ba sunu maam Ibou Sakho nekk waa kër na Cheikh Sadbou Chérif wa xayrtu Cheikh na Cheikh Tidiane Chérif Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal Cheikh na Cheikh Sadbou ak ki nga xam ne moo di Cheikh na Cheikh Abdou Khadre Jeylani donc <clears throat> diine ji benn la déjà benn bi ci des ku wax Baye Laye alayhi salaatu xam ni dana woon mën woon démb mën a tey loolu nekk loo xam ni mag ñi fësal nañ ko ñu ñu judd ci màgg ci gis ne que njaboot gi yëpp ci loolu la ñuy fonctionner ci ñun bu ñu neexee dañ naan barke maam Khalifa Ababacar si ñun dañ naan maam xalifa moo la ña sëriñ bopp Baye Laye moo la rësul donc au-delà de tout li ci important mooy lan la ñuy dund alxuraanul karim lan la diine wax. li diina wax moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi la sallam moo nekkaat fii di bàyyi alayhi moom la ñu wax moom la ñu mag ñu baax ñi sunu maam Xaadim sunu maam Seydi Haj Malick sunu maam Baye sunu maam euh, Abdoulaye Niass sunu maam kilifa yi fi nekk nekk yëpp maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom ñëpp loolu la ñu jàngal waaw léegi est-ce que ñun ñun waruñu bàyyi xel loolu davantage benn ñaareel bi gën a am farlu ak ak ak pas-pas ci ci sunu sunu diine sunu gëm-gëm li est-ce que xam ngeen ne que li ñuy wax yëpp ci wàllu réglementation. ak organisation sociétale et de société. mais lépp mu ngi ci ci diine islam. il suffit juste ñu gën ko jàng gën ko xam. la question nag mooy est-ce que ñun ñu ngay jàng suñu diine. loolu benn la est-ce que aussi buñ ko jàngee ñu ngi kaa appliqué. ensuite buñ ko jàngee est-ce que xam nañu ko. donc yëpp ay question la yoo xam ni mën nañ ci gën a bàyyi xel mais naa après ci loolu yëpp nag environnement la. est-ce que environnement bi propice na est-ce que nit ñi tal nañu jàng est-ce que nit ñi tal nañu parce que ñu ngi daw rek pour am lu ñu dundee est-ce que amul kenn ku ñu war a gën a mën a jàppale pour que loolu ñuy dundee yombu ñu ba ñu war a gën a mën a tal suñu diine question la donc tey baax na kilifa diine yi ñu ngi wootee ñu ngi araftu ñu ngi alerté ci domaine yu bare mais baax na kilifa diine yi bàyyi xel askan bi jafe-jafe yi ñuy dundee ñu wax leen ne que que que par exemple euh, ñii di jàll ñëpp il faut les comprendre lii yëpp dafa bokk ci éducation de masse. am na koo xam ne buñ ko orienté won ko ko kii jàll xamul. mais mais parce que dañ ko war a won loolu exemple la gis na ni mu ñàkk a xamee ba jàll ci kanamu caméra bi la mel pour tout le monde dans la vie au quotidien loolu nag dafa am ku koy structuré am na ñoo xam ne dañuy ñëw laaj seen baat ne fal leen ñu ñu fal mais ñu fal leen ñu bàyyi ñu ñun noonu war ñu bàyyi noonu donc tey Sénégal toll na foo xam ne baax na ñuy waxante dëgg ñu waxante ni fi nekk parce que lu ñu ñu mënti conseiller lu ñu mënti yee lu ñu mënti yedd te ñi nekk ci bopp bi yeddu wuñu yedduñu seen bopp te kenn du leen yedd mais affaire bi day compliqué. mais duñu duñu duñ la bàyyi tànk waxuñu si euh, ki nga xam ne Adji Sarr euh, mu nekk benn actualité ba nga xam ne mu ngi daw depuis un certain temps. mu dem euh, si journal yi nga xam ne ñu ngi sa tugal ay Le Monde RFI ñëpp di ñaawlu lool parce que nee nañ ñun à chaque fois suñu biir dëkk lu fa xew rek tubaab bi dañ siy ñëw impliqué wu. bon loolu xam nu mu tudd. Hmm. munaafiqun xam nga munaafiqun mooy hypocrisie yëfi seytaan la. benn euh, mbiram Adji Sarr Adji Sarr yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla dimbali ko mu génn parce que mu ngi dund lu jafe dugg na ci loo xam ni xamatul nan lay def ba génn ci. te am na aussi dama am impression sax ni dañ koy xaw a seetaan donc yal na ko yàlla dimbali mais au delà au delà il faut ñu bàyyi fo bi xam mooy fo mooy jël. loo xam ni dafa concerné ñaari nit mais mun nañ ko juger ne ki ñu convoqué woon demoon na pour wuy ji dañoo def ba wuy jiwul mu jur coow jur ñu rey ay nit jur safaan jur lu ne mais léegi lan moo empêché loolu am na am ni mu war a amee benn ñaareel ba il faut que ñu bàyyi épée de Damoclès bi ñuy teg ci kaw boppu nit ñi tey ñun suñu toogee ñu ne ñu officiellement waaw mbirum Adji Sarr nangam nangam ñe dañ koy yëngalaat lu tax boobu ba tey yëngaluñ ko mais lu tax lu tax la moo jaaxal Sénégalais yi. waaw euh, dañ def interview ba pare sponsorisé ko si page yëpp. waaw non parce que la war a jugee. parce que mooy la mooy que parce que que la la chose elle est simple. Mm. est-ce que Adji Sarr am na moyen bu mu waxee journal Le Monde. c'est ça est-ce que am na possibilité wax ak RFI. Mm. léegi ma laaj benn question ñun ñëpp ñu bàyyi xel. Mm. Le Monde. Radio France Internationale. France 24. Euh, Figaro. France Télévision France Info. ñooñu ñëpp. wàcc leen Paris Orly wala Charles de Gaulle du leen gis ci seen écran yi duñ ko tubaab bi duñ ko seetaan. duñ ko seetaan xam nga chaîne yooyu lan la. ce sont des chaînes de télévision yoo xam ne seen objectif mooy ñun ñi ñu gëlëmal ñu ñun ñooy complexe yi ñun ñooy toog suñu kër yi naan non moi je regarde France 24 yëfi dof la il faut ñun ñu yeewu xam nga yow mooy lan xam ne que suñu chaîne de télévision yi ñoo war a am fulla def des informations yuy doxal dëkk benn ñu bañ leen taxañ di leen demloo droite wala gauche la presse sénégalaise beneen bi mooy ñu refuser les populations ñu refuser je prends l'exemple du bouquet canal oh, canal plus oh. est-ce que vous savez que canal plus canal plus depuis 1991 depuis 1991 amul amul amul amul amul amul décret maanaam bu ñu signé bu koy permettre mu mu exister au Sénégal pourtant mu ngi exister dans l'illégalité pourtant kooku di exister dans l'illégalité mooy xeex groupe bu ñuy wax Excaf Télécom waa léegi loolu loolu qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que xalaat la donc na sénégalais yi yow xam ne que tubaab yi dañu am seen ay plan am seen calendrier am seen façon de faire Ousmane Sonko bu dindiwul woon tur yi nga xam ni moom la tubaab yi bàyyi woon biir Ziguinchor interview Adji Sarr du am RFI du am Le Monde loolu moo la dëgg bi donc yi ñu yeewu tuuti bu ñu yeewoo peut-être mën nañu am mën nañu am mën nañu mën nañu am ñii kilifa yi du wàññi dara. du wàññi dara du wàññi dara mais dañuy expliquer rek lu simple ci gàttal. moo di ne jot na ñu yeewu. Hmm. presse sénégalaise jot na ñu yeewu ñun nañuy bàyyi loo xam ni génne nañ ko à l'étranger ñu jël ko exploité waat ko fii mel ni def ñoo war a ñoom dañu gën a am valeur lan moo tax journaliste sénégalais yi ñu interviewé Adji Sarr lu tax Adji Sarr mënul wax a yeneen journaliste sénégalais. c'est ça c'est ça le problème. waaw léegi loolu nag presse sénégalaise ñoo war a yeewu xam ne que dañ leen di fonto ñu dox nañuy wax dëgg rek bu ñu waxee dëgg rek mbirum Adji leeg mu réglé ko. yaakaar nga ne euh, procès dina Euh, procès dina am ou pas je sais pas mais une chose est certaine loo xam ne dafa concerner ñaari nit benn ça relève du domaine privé mais nan ngeen mën a comprendre benn nit bu seq ak kenn ñoom ñaar ñu am problème mais nguuru Sénégal gàddu ko mel ni moom moo am problème il faut que ñu ñu yeewu tuuti quoi il faut ñu yeewu tuuti mais day xool dama bëggoon rek nga brosser problème euh, kii di Ahmed Aïdara fële ci Guédiawaye parce que Ahmed Aïdara dafa ñëw ak euh, gagné gagné euh, élection mairie mais gis nañ si élection kii yi nu mu tudd conseil dafa am benn kii nu mu tudd benn conseil la mujjee am. muy benn non non xam nga. l'histoire l'histoire de Guédiawaye. Ahmed Aïdara mu am mu am mu am comment on appelle benn conseil ou ñaar ou ñett ou ñeent. c'est pas c'est pas loolu du problème bi xam nga luy problème bi loolu dafa war a yokk jom amet benn ñaareel bi aussi couteau à double tranchant la parce que bu fekkee ne que amet am na ay projet waaye Guédiawaye gis ne projet yu baax la heure bu ko conseil municipal ba bloqué amet day génn rek wax ne conseil municipal moo bloqué projet bi dama ko bëggoon def ñu bloqué ma ñu ne ñan ñooy conseillers ñu ne waa Benno Bokk Yaakaar ak peut-être waa PDS ak gëm sa bopp yi ànd ak ñoom. mais bu boobaa li mooy gëm sa bopp ak ñii di PDS dañoo mel ne ñu xaw a jàng si beneen connu xam nga tey ci wàllu conseillers municipaux yi. ku si nekk am nga droit dem fu la neex. maintenant am na lu nit ñi doon woote. muy gëm sa bopp di di di di di PDS. am na lu ñu doon woote ci opposition bi. ci foofu ci waay taxawaay bi wanewul loolu. mais loolu population yi dañuy noté mu ngi jëm ci ay législatives ñu ngi jëm présidentielle population yi bu ñu ubbee seen bët dinañ xam géejawaay ñan ñoo def nangam ak nangam ñu ne ñii waa PDS la gëm sa bopp ñu xam kan mooy kan benn bi si des Ahmed day xarañ xam nga ci lan la war a liggéey sur les présidences de commission bu conseil municipal bi yëpp àndandoowee ne du ñu ànd ak moom moom na fexe ba am benn wala ñaar wala ñetti présidence de commission yoo xam ni ay nitam dañu fay nekk après le reste signature am nag moom mooy xool ku ko neex mu jox ko ko.